alaykum suñu mbokku Pastef fi nga xamné ne lañu la coalition du coalition Président ki leen ki leen fi téwal muy le coordinateur Demba Dioum di nuyu aussi suñuy kilifa gi nga xamné mo la fi parti bi yebal pour mu assister la structuration de la délégation communale de Awalé Medina tituru du en même temps le président du comité ad hoc du département de Dakar Babacar Ndiaye Alwali di nuyu aussi suñu doyen suñu suñu pap doyen Pierre Momar Nous di nuyu également ni ma parce que nous avons eu assistance bi la cat ba chat lu waral bëss bi moy dañu fi ñëwoon tey pour installation bureau communal bu Awalé medina lo xamné ñu ngi ci depuis ñaari at doon liggéey xaar ñu woon sax parti bi structuré woon Awalé medina mais ñun organisé woon nañ suñu biir de telle sorte que jiitaloon nañ sama jëmm ji si pour ñu def liggéey bi si anam yu mucc ayib donc tay liñuy wax rek day ñëw rek pour officialiser ko di sante aussi di di gërëm les membres de la de Awalé Médina muy goor ak jigen mag ak ndaw ñi nga xam dañuy jël sen confiance tek sama jëm ji du du âge du du ëpp ma leen xam-xam ndax ñoo mag ñu ngi fi amana sax mënuñ ma jur am ay jaar-jaar ëpp ma expérience ëpp ma background

suñu avons en chef le docteur Abdourahmane Diouf bi nga son excellence Bassirou Diomaye dafa denk euh, li wax bu bi enseignement supérieur am si mom timit donc également ñu koy fédalé suñu di engagement ñu ba ba ba ba ko engagement en quelque sorte man en tant que délégué communal de Awali Médina ak ñima andal ñëpp donc engagement bobu biñu am ànd ak docteur Abdourahmane Diouf engagement bobu aussi la réitérer la coalition Diomaye président bi nga xamné Demba Dioum mo leen fi togal di leen xamal né ah li ñuy wax rek le mom ku ku ku leen lebal rek ku leen lebal ñu fay la té son excellence Bassirou Diomaye amna na lu mu ji docteur Abdourahmane Diouf té docteur aussi

Non, nous ñu intégré la coalition waaye tamit ma leen di seedal benn mbir parce que moom le coordinateur Demba Dioum daf ñu faciliter intégration bi parce que tamit su siisoon si iñaan non wala su amone yenn beut bu mu ñu xoolee amaana tey lii du am bañ koy invité muy ñëw di assister suñu euh, installation bureau communal. donc ñu ngi lay sant monsieur Demba di la si gëreum di la xamal né engagement bu ñu réitéré envers docteur Abdourahmane Diouf engagement boobu lañ lay réitéré envers yow en tant que personne morale coordinateur euh, Pastef Médina di la ko réitère en même temps en tant que coordinateur coalition ma Président di la xamal ne lépp loo woote awla dina si dina si dina si def lu mu mën dina si def lu mu dina si teew te lepp également lo xam ne war na ko mën apporter ci coalition bi so ñu ko waxee inshallah allahu rabbi ak suñ ko yëgul sax dinañ ko dinañ ko def parce que comme je l'ai dit tantôt euh, yalla boole nañu ñu bokk non seulement coalition mais aussi bokk Médina parce que ay do Médina la ñun ñep Médina la ñu juddoo Médina la

pour dugg si politique mais au contraire dañuy ñëw dañuy dugg si politique pour jéem a xool naka lañuy jàppalee suñu suñu suñu suñu ñi nga xam ne moom ñu bokkoon Médina mooy suñu dëkkandoo yi muy mooy les habitants de la Médina parce que tamit soo nekkee si gox dana war a xool loo apporter gox bi loolu mooy suñu conviction te loolu ñu yàgg dawee loolu ñu yàgg doxalee depuis bu ñu nekkee tout temps que ba léegi à l'époque on avait même pas le bac am ñoo sax bac ay élèves la ñu woon mais le peu bu ñu amoon dañu ko doon partage avec les Médinois parce que loolu ñu gëmoon et on le faisait avec fierté à plus forte raison aujourd'hui bi nga xam ne nag am na yenn maturité yi am na yenn expérience donte defaguñu dara si àddina hmm. mais dañu bëgg gën a servir la medina te moo waral ñu dugg tey si politique moo waral ñu rejoindre le parti awale moo waral également ñu ànd la coalition Diomaye Président nga dëkk ci gox bi ñu fal la tey coordonnateur Awalé mais ambition politique lan la parce que tam yaa di am na échéances yu ñëw hmm. on nous parle des législatives peut-être même des élections couplées waaw xam na li ñuy wax rek nit nit su amul ambition ñu war a wax mom ndax suñu borom loolu lañu moñalé nit ku nekk dafa am ambition nit su amul ambition dañ war carrément yow yow mom kenn xamul lo bëgg donc yalla dogal la konku ñu ngi ci dañu nekk ci yoon nekk également ci coalition bi té amna ay échéances yu jëm nekk suñu kanam moy les élections législatives yi ay élections locales yi ngi suñu kanam té inshallah allahu suñu fa yeggee dina xam ban position la awle di jël dinañ xam ban position également la coalition Diomaye président di jël. wa awalé waa Awale wa passef medina Médina salaamaaleykum wa coalition Diomaye président tay man la Demba Dioum coordonnateur Pastef Médina teewal fi coalition Diomaye président même temps aussi teewal fi passef medina Euh, ci assemblée général bi nga xam ni Médina Awalé Médina ñoo ko doon def tey doon officialiser seen coordonnateur Moustapha Diop donc euh, tey defuma lu dul félicité ko ñëw aussi remercier aussi waa Awalé ci seen taxawaay ci biir euh, coalition Jawale coalition Awalé ndax gis nañu depuis les élections présidentielles taxawaay bu rafet lañ ci am ñu participer ci campagne bi participer ci financement bi participer aussi ci activité après les élections yi nga xam coalition son présence, le président euh, Bassirou Diama Diakhar Faye mon excellence yi muy woote ci biir ci Sénégal yëpp muy journée de nettoyage, yi journée de reboisement yi toute activité sociale yi nga xam ne président woote nag ñëw na nous, nañ indi fi taxawaay bu mat sëkk gis nañu aussi seen militantisme lu ma ak ñun ànd ak wóolute ànd ak aussi ak discipline ànd ak aussi ak confiance ànd aussi ak aussi khalat bu rafet loolu question yep nous ñu présidence fi ci aussi délégation chef minara qualité amitié aussi suñu ak remercier aussi euh, son excellence le président de euh, euh, remercier aussi le docteur Abdourahmane Diouf ci ni nga xamné mom la def ci rafetlu ni mu koy defee nii nga xam ne dana may doole coalition bi coalition bi aussi dañoo soxla aussi ay ay alliés yu mat sëkk alliés yu dëgër ndax réew mi ñëpp ko bokk donc képp koo xam jàpp na ci liggéey bi rek jàppin mu rafet dañuy sawar ñoo ànd ak ñoom ndax sénégalais président Bassirou Diomaye Faye c'est le président tous les sénégalais euh, ñi nga xam ne sax voté wu seen président la

di def di nuyu aussi waa Médina yëpp di ñaan aussi ñu jàppale ko ndax liggéey bi du yomb. Euh, politique autrement la ñu waree. bokkul politique bi nga xam dañ fi daan nekk di yor di joxe xaalis politique social comme ni ma ko waxee ñëw jàpp ci diini def ay activité sociale jàppale xale yi jàppale jigéen ñi jàppale mag ñi politique boobu la ñu woo ne war nañu politique boobu dañuy génn distribuer xaalis amuñ ko sax te suñu président ju jubal jubante donc politique boobu nga xam ni dëgg yàlla ñun ci lañ nekkoon ñoom ñu aussi nekk ci même politique boobu kon dañuy sawar ànd ak ñoom donc bépp aussi euh, allée bo xam bëgg nga sa ligne boobu nga dugg ci nous sommes prêts à ouvrir nos mains en liggéey ak ni waaw ñi ngi woo yeneen parti fi ne yëpp nga xam ne ligne bi bu fekkee moom lañ bëgg la nañoo ànd ak ñoom la coalition Diomaye président au niveau de la Médina est ouverte à tout le monde donc daal loolu laa mën ci kàddu di nuyu ku ci nekk ci ci turam di leen remercier ci seen teewaay donc euh, euh, dans le cadre de la structuration du du parti au niveau du département de Dakar nous avons mboole que provisoirement Dakar di avons ñu structuration officielle yi euh, l'ensemble des 19 communes de la délégation de Dakar loolu que les waral ñu ne il faut structure pour que communes moo tax jàmbaar yi dajale def assemblée générale def benn commission ad hoc commission ad hoc boobu noonu ñu jox ko cër boobu pour mu mun a gérer lépp nga xam ne moom mooy jëm ci situation yi ci commune bu nekk ci département bu Dakar mm. euh, ci loolu lañ ma tabee ma jiitee délégation boobu te di leen si jaajëfal bu baax a baax délégation boobu nag liggéey bi nga xam ne moom la commencé def mooy structurer lépp li nga xam ne moom mooy euh, commune yu nekk ci département Dakar te commencé ko fii tey ci Médina mm. ñëw fekk fi suñu mbokk yi nga xam ne mooy waa Pastef Euh, ñu bokk coalition bi nga xam ne mooy coalition Diomaye président ñu teewaay fi teew bu am solo ki nga xam ne moo jëmal délégation bi di le directeur général euh, Demba Dioum nekk en même temps euh, responsable communal bu PASTEF ñu ngi leen siy jaajëfal bu baax ak délégation bi mu àndal waaye structuration parti bi li nga xam ne moom moo gën a tax ñun dem ci structuration parti bi structuré wuñu parti bi pour dem parce que ñun xam nañ ni Awalé dafa bokk ci coalition bi te dafa bokk bu coalition parti parti bu euh, légalement constitué bokk ci coalition bi ba jouer rôle bu am solo ñuy délégation yi nga pour fas la coalition c'est Président ci élection yi nga xam wala échéance yi nga suñu kanam ndax ñun le président de la République son excellence monsieur le président Diomaye Faye mu à travers des réformes yu mu war def assemblée nationale ñu mun ko fa jàllale mu nekk ay réformes yoo xam ne dina bokk dans le cadre du jub jubal jubanti te loolu pour ñu def ko il faut que ñu am une majorité à l'Assemblée assemblée nationale structuration bii ñuy def nag bokk na ci waajal suñu bop gëna a dëgëral suñu banqaas yi ngir ànd ak ñi nga xam ne mooy suñu naataango yi muy waa PASTEF ak mbooleem alliés yi nekk ci coalition Diomaye Président pour ñu dem ci élection yooyu am na élection yeneen yoo xam ne mën na ñëwaat muy élection yi nga xam ne mooy municipal yi loolu aussi pour wadjal ko dina tax ñu and ak coalition bi nga xamné ci lañ nek coalition bi nga xamné ne Abdourahmane Diouf daf ñu diggal ñu sobu ci suñu kéem kàttan waaye dañu bëgg and ak ñom ci l'ensemble des communes au Sénégal ñu am majorité fofu mm. ngir yombalal le président de la République projet bi nga xamné mom lañu bok projet bi nga xamné mom lañu gis projet bi nga xamné mom lañu la épouser ba dugg ci biir coalition bi mm. projet bobu am succès nga xamné sénégalais yi fep fo nek sa xar-xaram dina gëna a leer waaye sa dundin dina gëna ñong tey ngeen ñëw Médina ngeen commencé ko fal Mouhamadou Moustapha coordonnateur communal de Awalé lan nga ci waaw ki nga xam ne moom la waa Médina wóolu ba tabb ko muy Mouhamadou Moustapha Diop mii taxaw ab jàmbaar la boo xam ne dafay yàgg xar tànk tubayam si lépp loo xam ne dafay doxal parti bi moo tax jàmbaar yi amuñu benn sikk sàkk gannaaw ba ñu waree fal li nga xam ne mu mooy seen délégué communal ñu tabb ko mu nekk nit koo xam ne poosam fekkewu ko nekk nit koo xam ne ñaqam fekkeewu ko nekk nit koo xam ne ay sacrifice yi muy def ci wàllum tempsam ak liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy liggéey ci cadre professionnel yooyu yëpp bu ko associé di dox ci parti bi li nga xam ne mooy jëmmal parti bi waaye mooy jëmmal projet bi donc loolu moo tax jàmbaar yi gis ko tabb ko gis ne ndaw la bu loxoom set te ndaw bu loxoom setee mu mën a bokk ak mag mm-hmm. donc ñuy kontaan di rangé wu ci ginnaaw contentement waa Médina yi di ànd ak mbégte gannaaw bi ñu falee suñu jàmbaar ji euh, Mouhamadou Moustapha Diop mu nekk délégué communal te xam nañ ni Moustapha euh, tànk yi nga xam ne ci la nekkoon di liggéey pour partie bi tànk yi nga xam ne moom la nekkoon di liggéey pour coalition bi tànk yooyu bu ko yokkul jéego yooyu du ko wàññi am nañ ci yaakaar te xam nañ ni fi nga xam ne fa lañ bëgg a jëm ngir Sénégal bu prospère ngir Sénégal bu suqaleku ngir Sénégal bu jubbantu dinañ gis ni Moustapha mi dina ci am rôle bu am solo bu muy joué ñu ngi koy féliciter bu baax a baax